asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi lundi 20 septembre 2021 li may def moom bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 20 septembre 2021 dañu ñëw ci yëglikaay su lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey la lion de Guédiawaye la xëy fësalati muy Balla Gaye numéro 2 ci anam boo xam ne daal mu nga yor ay sengoram di tuus yëglikaay bi nag daa dikk ci Balla Gaye mi nga xam ne ay slogan yoo xam ne xame nañ ko ko ci lamb depuis mu commencé bëre ba tey moom la ñu yëglikaay bi xëy tey diñu ko fàttali bokk na ci jàpp bëree daan ñibbi yëglikaay ba moo xëy tey dina ko wax maanaam daal Balla ak moom day dox ci kawam rek marché rek wutali ko jàpp ko daal wan ko ne ko duma sa morom loolu mooy li nga xam ne nii daal moom moo di ay waxam wala boog loolu moo di cri de guerre yëglikaay bi ne na daal soo bëggee dégg dëgg daal Balla Gaye numéro 2 lambam daal noonu la ca jàppe te ay attaque am tamit attaque la yoo xam ne yu gaaw a gaaw la bu la songee daal du la may foo xalaate lu dul moom la mu bëgg a def daal la lay def si yëglikaay xëy day ñëw dina ko wax koo xam ne mook Balla ñoo bokk benn gox di géeja woy di Lac de Guiers numéro 2 yëglikaay bi xëy na fesal ko ci xëtam mu njëkk moom itam ak écrim ba nga xam ne moom moo di écrit wàllu ak sept victoire ak ya nga xam ne am nañ ko ak six défaites yëglikaay bi ñëw na tey dinu wax lu mel ni ki noonu xëy nu tey wan ñu mbër ya nga xam ne ñoo fa ne ak ka nga xam ne moo leen di tàggat muy Arona Sall ron nag la mu xam ne daal nee na seen bëgg-bëgg daal lenn la daal nee na doonte seen résultat bi ñu am daa jàpp waaye ci kanam daal la mu bëgg daal moom la nga xam xam ne moom moo di sunu làmb door ba yëglikaay ba xëy tey ñëw dalal ko keneen koo xam ne yëglikaay bi dalal na ko muy soq soq daal nee na dafa bëgg mu leer nañ ci bët nit ñëpp ñëpp itam dégg li muy wax nee na principal adversaire am wala adversaire de taay bi mu war a bëreel du kenn ku dul Diène Kaïré soq loolu la gis ndax daa jàpp ne moom làmb ji buñ naan yàqu na yàqu na ne na làmb ji kon acteurs yee ko yàq rawatina nun mbëri parce que ne na boo dikkee nekku mbër xam ña nga war a bëreel nga bàyyi leen fi fekk ñoo xam ne waroo bëre ak ñoom nga topp ji leen dëkk soq na bu làmb ji yàqoo kenn yàqu ko ku dul rek yow kon daa jàpp ne Diène Kaïré ña muy dox di dëkk naan ñoom la war a bëreel ay saace sak ñooña ne na loolu day sonal boppam donc di fa guddee di fa yàgg ne na li leer ba leer daal na ñëw ñëw nu ñamante bëre man ak moom parce que loolu mooy yoonu làmb ji mel ni ki leneen loo xam ne nii ci soq moomu yëglikaay bi indil nañ ko ca tuusi muy digganteem ak franc boobu combat yi daal daa mel ni fi mu nekk nii amateur yi làmb yi ñoo koy wër di ko laaj diggante soq ak ka nga xam ne nii moom moo di franc bu parcelle keneen koo xam ne nii moom la mu xëy def ba ñu yëglikaay bi wax nu ko muy Fallou Ndiaye combat ay xale la fi muy bébé bis ak ka nga xam ne nii moom moo di Baye Ma Ndiaye bébé bismi ngeen xam ko ca Parcelles ak Cambérène Baye mi Ndiaye dëkk ci Guédiawaye yëglikaay bi xamal ñu ne daal fàllu def na lool le 18 décembre la booba combat fas yéenee am yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu ko wax kenn koo xam ne nii tamit finalisé na ab combat wala boog ab final lay tëgg muy jax final boo xam ne nag loo ci mën a dégg du woon moom moo ko commencé muy diggante caatu Daawda Fall ak Kaaw Gourdé ndax ku ne xam ne ne tournoi booba Idaali Ñing moo ko tëggoon waaye fi mu nekk nii daal jax moom moo téye booba combat fas ko yéenee tëgg yëglikaay bi nag dikk na ca la tax jax am combat ba maanaam sept cent mille francs téeméeri junne ak ñeent fukk daal la fay ñoom ñaar ku ci nekk yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu ko wax mel ki nag as siise la yombal mbir yooyu du kenn korul moom sunu làmb xëy toppal ñu loolu ndax nag as moom moo yore ñaari xale di leen manatise muy kaaw gurde ak ka nga xam ne nii moom moo di caatu a fall benn yëglikaay boo xam ne fa la ñuy dem muy la nga xam ne moo di les arènes yëglikaay ba xëy na tey fësal nu yaxya jóob yëkkini ci xëtam mu njëkk ya moo xam ne daal maanaam eggale ko ci lamb dana jafe lool ndax parcours ba mu def yàggaayu parcours ba ak lam ca wone maanaam yëglikaay bi nag soo bëggee dégg loolu daal mel ni moom dina jafe 500 yoo xam ne def na ko ci lamb defet moom déggu ko wala muñal leneen loo xam ne def na ko muy régime roi des arènes ba ak huit ans yoo xam ne daal téye na ko ko mu mel ni yaxee jub yi ki ni daal mel ni moom ci lamb yëglikaay bi jàpp xamal nañu ne daal soo bëggee dëgg-dëgg moom dana jafe lool beneen écrit boo xam ne nii moom trois victoires deux défaites mu yëglikaay bi jàpp ko ci moyenne de 60 pour cent de réussite muy bawol mbooloo ga nga xam ne Tapha Tine moom moo ko jiite yëglikaay ba xëy na tey ñëw dinu ko wax maneen la keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom ak couronne roi des arènes ba muy Modou Lo yëglikaay bii nga xam ne moom moo di lee arènes moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii yëglikaay baa xëy ñëw dina ko wax muy Fatma Dia ak itam tournoi ba nga xam ne daal moom la initié te itam muy tournoi fair play yëgle kaay ba nag xëy na tey moom les arènes wax ñu dat ya kañ lañ koy def fu muy amee naka lay amee ak ñan ñoo ko war a seq maanaam ña ca war a daje yëgle kaay ba moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki non mel ni ki leneen loo xam ne nii yëglikaay ba xëy na wax nu ko mel ni ki daal soo bëggee dégg dëgg daal ka nga xam ne moo di Mamady Diouf di ab animateur nekk fa nga xam ne moom moo di ca i rajo animateur bu làmb doon na def safar ci samedi ji nga xam ne moom la ñu génn yëglikaay ba nag xëy na xamuñu daal daal Mamady safaram googa daal bokk na ci njàngum alxuraan ak i xasidaak ñaan daal ngir coronavirus baak jafe-jafe yi ci réew mi génn fi kenn koo xam ne ni moom acte ba mu def dafa rafet ba yegg ci lool muy liiru jaan bu géejo waay mel ni ki nag fan yi moom liñ ko gis mu nekk ko di ko def maanaam rafet na ba ci mujjee mooy digganteem ak Mouhamed Ali ma nga xam ne ku ne xam ne ne écrit la mas a nekk yëglikaay bi xamal ñu ne lag daal maanaam bu bëggee dégg-dëgg dem na fa nga xam ne moo di ca këram fekk ko fa ak ay ndimbal yoo xam ne yu ama am solo la moo xam diwlin la moo xam ceeb la moo xam suukar la ak yeneen yoo xam ne daal dana ko soxla mel ni ki nag olof a koy wax koo dimbali koo tane hélas te dimbali woo ko yéen ñaar dong yéen a yem kon liiru jaan taxawaay boobu mu amee am na solo lool ndax liiru nag lu waay waxadi waxadi ak lu coow le ba lu coow la bëri ba rek sëmbale ba ku ne xam na ne xol ba dara newu ca ndax nag du jàpp mer loolu moom mën naa ko séddee man Babacar ndax nag sama waay la te xam naa ko kon liiru fa nga teg sa loxo nooy na def lu baax moom rek a am njariñ ku ko deful yaa ngi koy yàqte yaa ngi perte. jërë ngeen jëf kon dégg ngeen ko moo xam sunu làmb la moo xam les arènes la ku ci ne tey la nga xëy tey indil ñu ko waaye fa nu tëj rek fa la nuy ubbee muy la cas liiru Lirou Diane suñ ko waxee nag mooy liiru Diane yàlla dafa dogal yëglikaay bii di les arènes tey ca bref boo fa demee moo nu indil Lirou Diane ak taxawaay bi mu amee ñu gis ko muy lu rafet a rafet ku ne gis na ko ci Lutte TV mu dem kër Mouhamed Ali yëkkate ay xéewal jox ko ko jàppalee ko ko sulaase ko te loolu dina sulaase mag rawatina mag moo xam ne maanaam. ku ne xam ne ne la fa mu toll woon ci doole tollootu fa fa mu toll woon ci wér yaram tollootu fa kon liiru sast boobu nga def sast bu rafet rafet a rafet la vraiment daal ah ñëpp a ngi rafetlu nag Sénégalais yëpp a rafetlu waaye rawatina man mi nga xam ne nag suma waay nga di suma xarit di suma soppe may wax ne liiru jaan xol bi dara newu ci xol bi dara nekku ci loolu moom leer na et tamit def nga ko fi nga ko war a def parce que euh, écrit waalo lañ wax te liiru jaan écrit waalo la takke ngemba yaa ngi dégg Mouhamed Ali moomu noonu kon yaakaar naa tey boo fekkee ku bokku ci fa nga bokk di mag tette la ba tey nga doon dara nga gis ne te am na fu mu toll nga dem jàppale ji ko kon liiru jërëjëf macha allah sa taxawaay boobu am na solo trop trop trop yal na la yàlla gën a kàttanal ndax li may wax rek xumbal bi bëri na lool nag waaye xam naa ne waaw mooy loolu quoi <laughs> le monument de Guédiawaye vraiment exemple bi jar na roy trop jar na roy trop parce que ñun yu baax yooyu dañ koy bëgg di gis te liiru vraiment sas bi waaw léegi nag dañuy ñëw ci yëglikaay yi continuer ak ki nga xam ne ni moo di ku liiru jaan di Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi ñëw na tey wan ñu Balla ngeen gis ko noonu ak ay sengooram photo bi nag yaakaar naa ne su ma jumul digganteem ak Modou Lo woon seen combat bu ñu stade Léopold Sédar Senghor gis nga kook sengoor yi noonu yëglikaay ba ñëw di ñu xamal ne Balla daal ah solo gaam waaw muy kii di geeram bokk na ci jàpp bëre daan ñibbi loolu moom yàgg nañ ko koo déggee maanaam mu nekk mbër boo xam ne loolu nag soo déggee woon ñu di ko mu di ko wax ça veut dire que moom su ñëwee Balla ci làmb ci li ñu xam si moom bu ñëwee li mu bëgg lay wut si waaw am na ci ndam yu rëy rëy rëy loolu noonu maanaam loolu nga xam ne moom la gëm maanaam ñëw teg ci birig bëree bëreem dem ñibbi sto nag juum na ci tamit waaw parce que euh, des fois li lay may moo lay xañ parce que euh, des fois di nga dajeek mbër moo xam ne est-ce que noonu lañ ko war a aborder déedéet mais am na mbër yoo xam ne moom ah doo leen may jàmm te gis nañ ko mu def ko ci ay làmbam boo xoolee victoire am yu baree baree bare bëri bala xaarul taxawul dafa ñëw teg ci birig daan wala ñu daan ko et itam loolu la amateur soxla noonu muy bëree loolu la amateur soxla donte nag Euh, bëree euh, tamit dafa am aw yoon parce que mën nañ ne am na adversaire boo xam ne tey bu mel ni Eumeu Sène exemple mën naa ko jël euh, dafa nekk adversaire boo xam ne neexu la ñëw parce que ba daan na ball deux fois yaa ngi dégg neexu neexu la ñëw rek fekk ko ci géew jëlee ko fa noonu daan ko dem déedéet te ball bu dikkee la muy gis diggante ma Eumeu mooy dama ko war a e, e, effacer dem te Eumeu wax dëgg yàlla dafa dëgër ci bëree parce que et dafa mën a bëre dafa mbapat yaa ngi dégg boo xoolee Balla foofu dafa juum deux fois ñàkk combat ci digganteem ak Bombardier ñàkk beneen ci digganteem ak Issa Pouye ca début ca début carrière am mais loolu tërëwul tey bu ñuy xool tey mbir daq dàq bëri ci làmb dañ ko ciy boole ndax lu tax mooy li ma lax la bu ñëwee day indi li mu am te macha allah bëree moom lu mu maîtriser la moom Balla gay 2 loolu yëglikaay ba xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne mook Balla ñoo bokk gox muy Lac de Guiers de bi wan ñu ko écrit bi nga xam ne moom moo di écrit waalo waalo ak seen euh, li nga xam ne am nañ ko ci défaite ak victoire mu mel ni daal maanaam nombre de combats yi bëriwul parce que boo xoolee victoire yi sept la défaite yi six la défaite yi nag mu lu mu dee dee dee victoire yaa ëpp donte yaa bëriwul nag ndax ren li saison bi tëddee moo tax waaw moo tax nag Ron Sall moom ah moom mu leen di tàggat xam na ne daal ah jàpp na ne loolu ma na see jàppandi waaye daal xam na bëgg na nu ko gën ba xelam a ngi nekk ci sunu làmb door ba soq tamit gis ngeen ko wax na ne na dafa mu leer digganteem ak Diène Kaïré ne na loolu moo leer mooy làmba soq moo gisee noonu waaw da ngeen war ngeen a mëree war ngeen a mën a bëree loolu moom lu am la parce que ay xale ngeen te fi mu nekk nii ngeen toll nii nii ci seen ci ci ci ay xale di di wane seen bopp ci ngeen war a mën a daje daanante te du tere kenn maanaam du tax kenn sa yoon taxaw bu fekkee yaa ngi liggéey tey soq jën kay bu ñu bëree woon du téye ku ci daanu itam du tax sa carrière taxaw waaw ndax ñoom ñaar yéen ñaar ñooñu ku ci ne bëre nga combat ñàkk ko te pourtant tey yaa ngi avancé di dem Balla Gaye de Modou Lo bi ñu leen di boole 2010 coow li bëri woon na trop pourtant biñ bëri nañ am ku daanu Modou daanu mais ñu ko tey ana Modou moom mooy roi des arènes kon defe naa ne seen combat bu ko promoteur bëggee pour man war na mën a nekk. terewul nag amateur yi am na lu ñuy wër mooy soq ak ka nga xam ne nii moom moo def Franc loolu tamit lu jaadu la waaye Fallou Ndiaye tamit indi na combat bu neex combat espoir muy Baye Ma Ndiaye mi ngeen xam bu géej way ak ki nga xam ne nii moom moo di bébé bis bu nekk ca jàmbar wrestling academy ci keebaruñu Papa Sow mu ni ki nag foofu combat ramance la Fallou Ndiaye tëgg ndax damay wax ne Ndiaye production souvent dañuy def loo xam ne nii loolu il fallait que nga xam lamb pour mën koy def parce que ku ne xam na ne bàyyi Ma Ndiaye foo waxee papa poulain papa booy jinne la ci niñ ko xamee loolu moom la yàlla dogal papa booy jinne boobu bébé bis mi moo ko mujj daan mu nekkoon làmb ju amoon yaa ngi dégg mel ni kon loolu mooy li nga xam ne nii moom la Fallou Ndiaye indi muy lu am kon nag yàlla nañ ci yegg le 18 décembre jàk sa tamit yëglikaay bi wan nañu caat daaw dafaal ak ki nga xam ne nii moom moo di euh, kaaw gourdin final ba jàk sa moo ko mujje am mbër mu na fey na la cent mille francs loolu yëglikaay ba xëy na wax ñu ko muy loo xam ne nag idaali ñi ngi moom moo ko initié woon waaye malheureusement mujj ko yeggale jàk sa moo ko ah xamuñu nag lu xew waaye lu ci mën a dégg daal comme li may wax rek yéen ñi bokk teen bi daal yéenay laxasoo ay goj waaye tamit lu mën a xew rek da leen waxtaan waaw am na si solo di waxtaan du yàq dara bu nu continuer les arènes mu nu xamal ne Yaxya Jóob Yékini égale ko ah inégalable loolu la yëglikaay bi wax muy mbër moo xam ne waaw égale ko di ci làmb dina jafe Yaxya Yaxya bu kar parcours ba gën macha allah Yaxya def na 15 ans yoo xam ne daanuwut Yaxya de yaakaar naa nekk na roi des arènes huit ans yoo xam ne daanut Yaxya dem na Niger tas fédération ba jël saafur door ba Yaxya lu ne def na ko si làmb lu ne lu ne lu ne lu ne ah mbër mu mel noonu nag yaakaar naa te carrière itam macha allah bi mu ci toll da nga koy xool xam ne il est professionnel il est sérieux moo ko indi fi mu nekk ndax euh, sport su rawatina sport individuel dafa laaj sérieux dafa laaj kon waaye nag defe naa ne jàngat la ci xale tey yi ci toll ñu xam ne Yékini mi référence lañ ko war a def roy ci moom Bawol Mboro 3 victoire 2 défaite ñoom itam seeni victoire yëpp seeni défaite donte combat yi bëriwul waaw ne xam ne ne du lu bëri Modou mel ni kan daan tey ak itam leneen loo xam ne nii ah euh, euh, nañ ko bàyyi xel muy un million boo xam ne góor production góorgóorlu production moom moom ko teg ci terrain gaal gi ah loolu war a am la 2 octobre loolu la 2 octobre la war a am ca fa nga xam ne ni moom moo di terrain gaal gi yaakaar naa suñu bët setale ñuy dem Ibamar ak Jax le 3 foofa 3 millions am fa kon lamb bi simple ji daa mel ni ñoom fi mu nekk nii ñu ngay commencé di wane seen bopp ci ay journée di signalé wu loolu moo fi dikkoon tey di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp aq di wax ne màggal gi nu jëm yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ak ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu barke bi sallallahu alayhi wa ndax ka woote woote ba moom lenn yi teelu ko lu dul jaamu yàlla ci jaare ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moom ab liggéeyaa konam la ba amee garaatu xaadim rasul mu Cheikh Ahmadou Bamba ku mel noonu nag ah yàlla yàlla nañu yàlla dimbale ba bu ñu koy roy di ko topp ngir sunu ndimbal ak sunu mucc yàlla nañu yàlla di xiir ca la nga xam ne ni moom la digle santaane ko te li ma la wax du ko génn rek mooy liggéeyal yàlla rek jaare ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa yaa ngi dégg ngir xettali jaam yi lii moo tax si Ahmadou bàmba Mbàkke yàlla andil ñu ko fii ci réew mi ak mag ñi mel ni ki moom ne ci réew mi di ñaan sëñ Muntaxa xalifa bi yàlla na fi yàgg loolu te wér borom mbég mi comme nuñ koy waxee te wax ne daal lépp lu ci waay fas ci màggal gi yàlla na ko yàlla def bi yàlla na fi jóge ci barke màggal gi barke 18 safar te am nañ ci yàqina am nañ ci yàqin bu baax a baax lépp yàlla mi ne ñaan leen ma may leen ñaan leen ma may leen ngeen sant ba ma dolli leen am nañ droit ñaan ko te bisu sant la bisu ñaan la bésu berndeel la bisu yërmande la kon loolu nag li ci am solo nag mooy nañu fexe rek ba jëfe ndigal yi te bàyyi tere yi rek loolu moo ci am solo di balu ñëpp ak hélas di leen wax ba suba incha allahu rabbi Thank kon jàmmante nañu ah oui bon di sëf la kii ah oui attention Jackson d'accord